bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi amaat mbégte di sant yàlla di julliwaat yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di feddliwaat sunu yaakaar ci seexuna ahmadul xadim di ñaanal sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram te defal ko mbooleem rakkam yëpp ak mbooleem taalibe yi sëriñ tubaa yëpp mbokk yi noo ngay amaat mbégte ti toog ci jataay bii nga xam ne jataay la bopp bu ngeen gisee nii mu demee da ngeen xam ne daayira nooru daara yi ni Touba ca kanam mu di mbooloo mi nga xam ne seen bët ñi ngi ko teg ci plan bi nga xam ne moom la Serigne Touba Xaadimu Rasuul rëdd ci dëkkam bi ne lii ñaan naa sama boroom mu am ci sama dëkk bi laata addunay tukki mbooloo moomu nag seen fab seen bët teg ko ci plan boobu fas yéene fépp fu seen kattan àgg ñu defal sëñ tubaa lam ñaanoon ca xasidaam googu ñoo dajawaat tey jii nag ci benn commission bu ñuy tuddee commission sociale commission sociale ci tubaa ci kanam nag ku ne xam na seenub liggéey mu jëm ci lan mooy la sëñ tubaa ñaanoon na yàlla na nga def jirim yi ak miskin yi ñàkk ndey ak ñàkk baay man mii ma taxaw seen taxawaayub ndey ak seen taxawaayub baay loole moo tax bànqaasu sociale bi nekk ci tubaa ci kanam fas yéene yëkkatewaat ay kàddu nag ngir waajal socialu Ramadan socialu Ramadan yaakaar naa ne. jirim yi xam nañ ko waaye néew doole yi xam nañ ko miin nañ ko it ci Touba ca kanam weeru koor ñu tànn bis yoo xam ne buñ ca àggee danañ dimbale nit ñi ci wàllu la ñuy doge ji danañ dimbale nit ñi ci wàllu suukar danañ dimbale nit ñi ci wàllu tàndarma loolu yaakaar naa ne ko xam Touba ca kanam xam nañ ko bis boobu nag lañ jàppaar ren mu war a nekk le 24 avril dëppoo ak fukki fanak ak ñaar ci weeru koor social ramadan moo waral jotaay bi nañ ko daan defee rek parce que yéene tàmbali defaat di ci woo ñëpp it bëgg lu ci waay daan def te jéem a góorgóorlu ba def ci lu ko raw fop ngir nu fu mu daan àgg mu àgg fa ba weesu ko loolu mooy mooy mooy sababu jataay bi li nu ci waroon wax war naa gudd war naa bari ndax e, liggéey bi jare mate na ko wante nag gannaaw sëriñ abi boo ngi nii bu nu ubbee jataay bi noonu yi dañ koy bàyyeeg li ci des mu wax ko ndax ci kàddoom ak ci xalaatam ginnaaw bu ko sëriñ bi jagalee moom lañ fi dajee muy mooy mooy liggéey Touba ca kanam bi kàddu yi tey di ko jukkiti mooy social ramadan bi nga xam ne ñu ngi koy woote te ki nga xam ne mooy jiite so euh, commission boobu muy Cheikh Amadou Mourtada moom Cheikh Abdou Fatah dana ko suñu borom bàyyi wér yàgg te yàgg taxawaay taxawaay rafetlu ko boobu moo tax ñu daje te jii ànd ak kilifa bu loolu wéyee may woo sama bopp di woo képp ku yàggal Sëriñ Tuubaa ci liggéey bi nga xamee ne Tuubaa ci kanam naka jekk loolu la jógee woon dañuy dem tudd ne social rek waaye jëmmi Tuubaa ci kanam mooy social te yàlla mooy taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal أنسى الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا كثيرة waxaat ne wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda Allahi waxaat wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu loolu lépp day woote social pour ñu liggéey yàlla jox yàlla li nga xam am na ko ci bindee fi ndax yàlla bu la joxee loolu ëpp du la séddaloo kon may wax ñi am asaka nañ ko génne joxe ko ñi nga xamee ne am nañ yàlla mën na la gan nañu jël lañu am te yàlla tax ñu dimbalee ko nit ñi taxawu lañ ci def lu baax nag waaye Tuubaa la gën a nag waaye fi mu gën a Tuubaa tim ci weeru koor la gën a tim ndax weer la woo xamee ni euh, xaw a dee waar la ndax euh, da nga ne mooy moo ci war day bari lool kon ñuy woo képp koo xam ne yàlla mën na la gan di mu la ah, na nga ñëw ànd ñu ci liggéey bi te def ci loo man loo mënut te xam ne yàlla bu la joxee bu la joxee lu ëpp dafa laa séddaloo man na nga ñëw jaayante ko defoo ko Sëñ Tuubaa defoo ko julli yi nga xam ne ñu ngi yeewu ci bakk Sëñ ak fu waay ma nekk Sénégal ndax social Ramadan sax mu yem ci Tuubaa képp dañu ñaan yàlla mu wër Sénégal gépp bañ a sonn enquête Sakaar House bu ñu ko doon xalaat muy muy maal nga ne ko fi xëy na nit ñi ni ñu ko déggee ni ñu ko doon woote dañu ko dégg woon noona waaye ku ku xam joxewul asaka ma nga profité ci ramadan bi boole ko social ramadan boole kon waa Touba Ca Kanam fas yéene ànd ak sëñ ne moo jiite social boobu ngir liggéey sëñ Touba ci bi kon may woo ñi nga xam ne samay wëllëri bopp lañ te euh, ñu sama xel mi ma woo lañ sama kàddu bopp ndax yooyu ndax loo ma saan sumb ànd nañ caa man talaalaa mun taxalaaw ji ndax moom at moo njëkk a joxe wàllam bu noppi sëñ Sidiou si Abdoulaat mi nga xam ne mooy jëwriñam day joxe wàllam jaar ko sama loxo sëñ Abou mu sëñ Falilou ka saarik sëñ Abdou Fatah ka saarik ak njabootu sëñ Tuubaa yëpp sax lay wax ndax ku lim da ngay jum waaye man nga bañ jum waaye doo gaaw matal ñoom ñëpp kenn ku nekk kay yaa ngi yëkkat sa sa sa sa sa sa addiya eh, di ko di ko jox kon ñi ngi woo ñëpp ñëpp ñëw kenn am ni ko waaye woo sama xarit bopp yi nag mooy sëñ Fallou Garas Mané eh, at mu njëkk indi wàllam ci liggéey bi li tax mu wax ko nag da ko seqe man rek euh, at mu jot mooy njëkk indi wallam te kenn ëppale gu ci bu nappee may woo euh, sëñ Seck nga xam ne sama mbokk la sama lépp la moom itam gis naa liggéeyam ci ci ci ci ci ci ci social bi euh, at mi da ko ci man ñi ma ñi ma li nag dañu ko jaarlu ci man waaye xam naa ñu ngi ñëw sax waaye li jaar laay mën a xam ngir mën ko leeral kon ñooñu man woo naa leen di woo ñi nga xamante ni mooy ku ne Ablaye Dia mooy suñu wëllër la waaye mi ngi a ay addiyaam bi eh, sëriñ buub kasaalika eh, ak ñoom Moustapha Fall ak Papa Fall ak eh, Isma Fall na ma ne ñoom yónnee léegi Isma Fall moom bopp ndax mbay sa wala tàmm wala lu ñu mën a dimbale bindee fii naka jekki tuwaaji kaam ci la waaye rek kan waa tuwaaji kaam ci dana maa ngi waxtaan wax naa wax si Abdoulaye mi nga xam ne jëriñ mu wax Abdou a Guèye mi président bi ak ñu ngi ko seqal yëpp liggéey bi ñu am lu ñu jël ci keesu Touba Ca Kanam def ko jox ko ci social bi ngi jàppale ko bi fi bu ni ñi dajale ñu ab ba nappi nag waaye ñaar yi mu di dajaloon nañ ko nañ ko asakaal asakaal gi ñu ko asakaal dañu ci génnee ab boo xamee nañ ko jël ngir dimbalee ko euh, néew doole yi ma nekk te te nekk jëwriñ Touba Ca Kanam rek na nga na nga ci boole waale social ci kanam social bi tamit nag ramadan moo ñu ko fexe ba def ko ramadan boo xam a nit ñi dañ ne Touba Ca Kanam kat jàppal nañ ramadan bi jaaye jàppal nañ juddu yi kon nañ ci góorgóor baax sëñ bi yàlla yàlla taxaw ci liggéey bi nag jàppale ci ñu ngi ñaanal Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ndax liggéey bi jamono juñ koy def rek xel dana dem ci moom ndax jamono ju nekk moo ci jiitu moo ñu ñaanal itam ba nañ ko bëgg ñu mën koo def social moom jamono ju nekk Touba ci kanam mi ngi ci comme ni ko sëriñ bi waxee léegi waaye ñor gum leen ñor moo tax mu ñu sosal ko ab bànqaas boo xam ne nii lay liggéeyam mooy taxawu nit ñi ci wàllu wér gi wér gi yaram taxawu leen ci wàllu dëkkuwaay waaye taxawu leen itam ci wàllum dund loolu moom jamono ju nekk ñu ngi ci bu ñu dërmal koor nag bëgg-bëgg yi day gën a yaatu te weeru koor bokk na ci weer yi nga xam ne nii ci la sunu borom di gën a nangoo jëf yi ndax mooy weer yu gën ci weer yi waaye bis bi nga xam ne moo gën ci bis yi ci biir weeru koor la nekk waaye téere bi nga xam ne moo gën ci téere yi mooy alquranul karim ci weeru koor lañ ko lañ ko wàcc moo waral bu ñëwee ñu profité ci bis yooyu ngir yaatal mbir mi daaw nag liñ jàppale woon ci ay nit mu ngi tolloon ci junni ak juróomi téeméer ren ji am na nañ yéene jàppale lu lu ëpp ñaari junni jaboot waaye loolu lépp nag ñu ngi ko aj ci ab jaayante boo xam ne nii bokki taalibe yi ñoo koy jaayante mooy man damay génne sama suut kaneen ku am astuut tamit génne ñu boole loolu lépp man koo dimbali ñi nga xam ne nii seen loxo jotu seen ginnaaw donte ñun ñëpp suñu loxo jotu seen ginnaaw waaye waxeen rek la niñ koy defee nag mooy ab recensement la ñuy def boo xam ne dañuy dem ci fa dëkk ba gën a soree ñu koy wax ay sancaan jël fa ab lim boo xam ne nii amul xaaj ak seen bu ñu noppee ñëw ci biir dëkk bi ndax am na ci biir dëkk bi ñoo xam ne boo leen di gis mën ngaa jàpp ne ñu am lañ waaye ca dëgg-dëgg seen jamono mën naa bañ a demee noonu noonu lañ koy noonu lañ koy tërale nañ ko defee itam nañ ko defe woon daaw itam noonu lañ ko fas yéene woon defaat defewaat ren muy ñeenti xibla yëpp lañ bëgg a wut ay barab yoo xam ne nii ku ci nekk fan la recensé rek fa nga gën a jege foofu fa ngay jëlee kon mbindu mi doorul loo xam ne nii dañ dañuy dañuy ñëw di ko jaarale ci man wala ñu koy jaare ci kenn ci Touba ci kanam waaye waa Touba ci kanam ci boppam ñooy fekk askan wi ñi xamee nii nag am nañ jotug mën a dem ca siège ba itam bu fekkee ne dem nañ fa te lim bi matagut danañ leen ci boole kon ñu ngi ciy woo bokki taalibe bi yëpp tàmbalee ko ci sama bopp waaye di woo fu waaye mën a nekk te mën cee jàpp te xam ne soxlay social moom yëmul ci social ramadan bu ramadan bi weesoo tamit day continuer képp koo xam ne am na lu mën a jàppalee ñi nga xam ne nii seen loxo jot seen ginnaaw ci wàllum courant ñu ngi koy tàllal loxo ci wàllu dëkkuwaay ñu ngi koy tàllal loxo ci wàllu ab ndox moo xam forage boo fi mën a def ñu ngi koy tàllal loxo kon ñu ngi ciy woo ñëpp di am yaqin nag ci ne lii ñuy woote dañoo jaar ci sabab yi rek waaye nañ ko bëggee danañ ci am lu kawe suñu jor ndax borom dëkk bi moo waxoon ñaanoon boromam ne ko suñu borom mu may ko lépp loo xam ne ni yéene na ko ci dëkk bi rabbi stajib wal tukammil maana waytu la daa tuuba lati bi katub naa fi kabun yaana te laataa muy wax loolu waxoon na ne lépp loo xam ne bëgg na ko sunu borom da koy wommatal bala mu koo sàkku wasaaxali kullama ahwa bi la talabin kon am nañ ci yaqin bu wér ci ne lii ñu ñu ñu dënmal si danañ ci am lu kawee suñu jot te loolu ñi nga xam ne ñoo nekk ci Touba Ca Kanam mën nañ ci xam lu leer leer mu doon liggéey boo xam ne nii nag euh, moo des ci jamono am na mag mu baax moo waxoon ne li mat a def lépp sëriñ bi def na ko ñaar rek moo mat a yeesal ci li nga xam ne sëriñ bi def na ko muy dimbali ku amul ak xamal ku xamul kon ñu ngi ciy ñëpp. ñuy woo nag waa diaspora bi Rama Diouf mi nga xam ne moo ko jiite ak soxna Alima Dukkure ak soxna kii kii soxna Fat Thiam ak soxna Kumba Diop ak soxna Ami Ndiaye xam naa nag ku lim doo matal maa ngi jégalu bu baax. waaye daal ci gàttal ñi ngi woo waa diaspora bi ñëpp ñëpp ñëpp waaye ñi ngi ngi woo ñëpp ci liggéey bi wax ji moom weesuwul ñëw leen ñu liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi ak waa dëkk bi jàppale leen bu baax a baax ba kenn bañ jàmbat dara euh, suñu doogaay bi nag bu ngeen ko gisee ñuy waajal bis bu rëy bis bu màgg euh, muy social ramadan bu Touba ci kanam euh, bis bi nag war a dëppook samedi le 24 avril nekk fukki fan ak ñaar ci weeru koor ñu ciy soññ nag mboolem soxna yi ndax soxna yi ku ne xam na ni euh, Touba ci kanam mosuñu cee des ginaaw te duñu des ginnaaw kon ñu ngi soññu mbokk soxna yëpp rek e, tàmbalee ko ci 14 régions yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal mboolem coordinateur coordinatrice fu nekk rek ñoo ngi lay woo ci bisu social bi nga xamante ni muy bisu jaayante e, di dimbalante ñu leen ciy woo bu baax a baax noonu lañ ciy soññee nag mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal biir Touba ci kanam ñu jël lépp rek teg ci loxo soxna Bintu Mbàkke mi nga xamante ni mooy jëwriñu soxna yi mu jàllalee ñu ko ci mboolem soxna yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Touba ci kanam. mbokk yi ñoo jot a dégg kaddu yooyu nga xam ne kaddu yu soññe la waaye kaddu yu fàttalee la kaddu njariñ njëriñ la muy fukki fan ak ñaar ci weeru koor yemoo ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bisu boobu nga xam ne bisub dimbalee la waaye bisub jaayante la muy lan social Ramadan bi nga xam ne Touba ci kanam da koy amal at mu jot. ren nag ñu jàpp ko defee ci kër sëñ Touba gi nekk Daaru Manaan ca mbaarum conférence ma bu ñu xëyee rek lañ koy tàmbali waaye du tee nag ndimbal yi quartier yi nga xam ne tuddoon nañ ko ci ñeenti gox yi gox bu nekk danañ fa yóbbu ndimbal loo xamante ni mooy gën a jege seeni i borom ci kaw bu ñu seeni seen tur ba noppi kon nag mbokk yi ñi ngi soññeewaat xam ngeen ne lii ñuy woote mu di jaayante sëriñ Abibullahi ibnu Cheikh Mamadul Fadal nee na yëkkati na une tonne ceeb tàmbule ko di ci soññi nag mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal yoon wi ñëpp di ci soññi mbooleem taalibe yi di soññ nag képp ku mbokkal sëñ Touba nga xam ne lii ñuy def yéen lañ koy defal buntu kër yi doomi sëñ Touba yëpp moo xam muy doomi sëñ Touba ju góor wala ju jigéen waaye buntu kër seexi sëriñ Touba yi li ngeen am sëñ Touba leen ko jox te it sëriñ Touba kat dafa woote woon ban ñëw moo leen seen yittey adduna yi nekkal leen ma ci su ëllëgee maay faj seen aajo yi kon nag ittey àdduna yi dara jiituwul ci jullit bu xiif nga reggal ko sant nag bu baax ñu ci jàppoon daaw ku mel ne sëriñ Fallou Mbacke Maane sëñ bi wax na ko léegi sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom Cheikh Abdoul Fatah sëriñ Moxtaar mbaki moom sëñ Modou Moustapha Falilou waaye alhaaji Abdoulaye Dia ak sëriñ Souleymane Diagne sëriñ Moustapha Seck Njaareem bëggut kuy tudd turam waaye nag jàmbaar bu dee def dañ koy waxee ndax soññee ko ña nga xam ne ñoo des ci ginnaaw waaye di soññ bu baax alhaaji sëriñ Seck moom itam sëriñ bi doon na ko léegi alhaaji Omar Bawo sëriñ Abdoul Karim Fafana ak mbooleem commerçant yi nga xamante ne ñoo ci biir Touba nag ak li ko wër di ko tàmbalee nag ci waa euh, assis ñi nga xamante ne bii ñoo leen fi teewal waaye di soññ bu baax ak di ñaanal alhaaji Mandiaye Diong jong na yàlla dolli ay leeram yal na yàlla dolli ak njëgalam ñu ngi ciy ak njabootam gépp xam le ne social bu Touba ca kanam ñoom yemuñu ci rek ci weeru koor xam ngeen ne daaw dépensé nañ lu mat cent quarante huit millions téeméeri million ak ñeen fukk ak juróom-ñett loolu nag bokk yi benn ñaar téeméer boo xam ne nit dagg na ko kartu Touba Ca Kanam bokku ci lan lay doon mooy ñiy jaayante génn seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla wii di ko joxe ngir jëmmi yàlla di sant bu baax a baax alaaji Mbay Touré waaye di soññ mbooleem ñi nga xam ne ay opérateur économique lañ ñi nga xam ne bu ñu tuddee sëñ sëñ tubaa kenn ku nekk nen sëñ tubaa sa moom sëñ tubaa la boo lambee sa poos xam ne la nga ca bàyyi sëñ tubaa ko moom nga duy ci sa compte gi xaalis boo xam ne wóor na ne le mënoo koo jeexal ci sa dund te ëllëg gi si bi da nga ko ñu miraas ko nga xool sa moo xamante ne bi ma di xiif te bu fi sëñ tubaa nekkoon du ko def nga ne jàpp ne kooku waroo ko jàppale kon yaa ko war a jàppale ji kon nag bokki taalibe yi mbokk yi nga xam ne liñ am sëñ tubaa ko moom tubaa ca kanam a ngi leen di woo ci li nga xamante ne bii moo jëm ci wàllu social Ramadan buñ koy waxee nag faw ñu tudd ci ki nga xamante ne bii moom la sëriñ bi fab saayirus dëkk bi teg ko ci loxoom mu di sëriñ Abdou Lahad Ka bu meer bi Touba ñu ngi ko ciy soññi di ci soññi maire bi yëpp nag ak mbooleem conseiller ne ci maire ba waaye di ci soññi nag képp koo xamante ne bi daal yaa ngi ci biir réew mi wala nga nekk bitim réew ak foo mën a nete ci yaakaar ne lii nga weer daal da ko koo war a jox yàlla te bu loxo bu ma koy jaaral te na ma teg ko ci loxol Touba ca kanam mu séddaleel la ko ci maandu julit ba jot ca ñaanal la yàlla yàlla musal la ci musiba yi ba noppi nag mu jariñ la ëllëg yowmal xiyaam ga nga jëm kon nag ñi ngi séentu ñëpp ñooy xamal bokki nag lépp lu ci waay di def nag mën nga ko tàmbalee yónnee ndax fii ñu toll tembe lañ nekk ci waajtaay wi jëmee ko ca bu ñu àggee ci bés ba dañuy séddale rek ñëpp am ci kon ñi ngi ciy séentu ñëpp nag di ñaan képp ku ci def saw ñaq yàlla mi nga xam ne moo mën a faj aajo yàlla na la fajal aajo yi adduna ak jooj àllaaxira jëlee fi mbas mi jëlee fi balaa bi jëlee fi ñàkk gi jëlee fi réeroo gi jëlee fi ñàkk déggoo gi andi fi xiiwal gu fi sax dakk goo xam ne duutu fi toxu ba faw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.